salaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk turam ak santam di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu coordinateur sëriñ Mahdi Ibrahima ñas di nuyu képp kuy responsable PDS fii ci Kaolack ku ci nekk euh, turam ak euh, santam. Euh, man la Tidiane Sall responsable euh, Tabangoy 2 fii ci Kaolack coalition bi dama ci euh, am lu may sànni tuuti rek vraiment euh, yaakaar naa gis naa yenn frère yoo xam ne dañu nekk di ŋàññi coalition bi mais nag yaakaar naa Karim Wade mi nga xam ne moo demoon ñu tëj ko mu def trois ans euh, presque et demi ci prison bi yaakaar naa ne bu doon luy metti ci moom ba du ànd ak APR moom lay war a gën a metti mais nit ñi nag dañoo war a comprendre ne ci politique lañ ne te aussi politique euh, gars yi waruñoo jël benn affaire rek ne non li ñu Macky sàll defoon ak li ñu kii yooyu amul benn benn sens ñun ñëpp xam nañ ne liñ tegoon PDS metti nañu mais nag nañ xool intérêt parti bi aussi ñu xool nan la ñuy def ñi fi nekk pour buñ demee élection nuñ mën a fexe ba daan leen parce que fi mu nekk nii tey jii buñ leen daanu rek ñu ngi ci en danger man loolu laa gis danger biñ ne mooy buñ demee commencé nañ seen affaire u dictature yi ñuy def nii bës buñ jëlee assemblée nationale dinañ fi daganal lépp lu leen neex ba pare jël ay loi yoo xam ne teg ko ci kaw population bi wala euh, te dootuñu ci mën a ci mën a ci dara léegi population bi nañ def très attention xool def nañ choix réew mi lépp a ngi taxaw dara doxut te lépp luñ fi waxoon amul dara loo xam ne respecté nañ ko appel à yi bëri na mënuma compter lépp luñ fi defoon te te fi mu nekk ni amul dara luñ ci def ba pare nar leen a joxaat assemblée nationale loolu bu ñu ko defee nañ xam ne dugg nañ ci pax donc nit ñi nañ xoolaat seen euh, bopp bu baax may woo nag suñ freeru PDS yi ñi nga xam ne tey jii ñu ngi bëgg dem di bëgg parti bi xaajoo loolu du seen intérêt nañ ñëw ñu liggéey pour mën a gagner élection yi moo gën ci ñun ñu boole suñu doole boole suñu lépp pour gagner élection yi nañ joxante loxo ñun ñëpp ñu bàyyi ay affaire faluñ ma lii euh, poste nangam laa doon xeex joxuñ ma ko bu fekkee PDS moo nekk suñu xol yi ñu bëgg PDS nañ xool nu ñuy joxante loxo fii ci Kaolack ak Ndakaarook région yëpp yi nekk ci Sénégal ñu xool nan la ñuy fexee ñu liggéey pour ñu am ndam parce que division bi du ñu arrangé arrangé wu ñu ci benn côté voilà ñu il faut ñu joxante loxo mën a mën a liggéey maa ngi woon ak frère yëpp ñi nekk fii Kaolack ku ci ne maa ngi lay woo di woo Tafa Thiam di woo badu Ndour di woo Pape seen di woo Baba Diop di woo euh, bu ma lemee il faut di damay juum di woo ñëpp ñi fi ne nañ joxante loxo mën a liggéey ci législative yi pour ñu gañe élection yi voilà loolu rek moo ñuy may ñu gañe élection yi ñu bàyyi suñu liñ doon xëccoo yëpp ñu teg ko fële ca gannaaw ñu joxante loxo pour gañe élection yi incha